Nak ñu ngi um génn dem di séti i kilifa yi nga xamantene um ñu ci si biir dëkk bi ma ngi ni fi ni um ci kéri oncle Unda Ñang mi nga xamantene mo moo um regional chairman bu NPP fi ci KMC. alaykum online TV ma ngi la nuyu di leen gërëm di leen santa di leen ndokalé ci weeru koor gëna ni euh liñ ci or yalla ko yalla nangu liñ ci joom yalla ko yalla jégal. di kontaan ci seen teewaay tey. ok um, honorable Unna um, mu ngi mel ni tey um, ñëw nañ fii uh, fekk la uh, si sa biir kër fii lu tax ñu ñëw nag mooy bés bi uh, ndaxte bés bu màgg la korité bés bu màgg la bés yi jégalante la soo gisee bés bi si jotee ku nekk soo gisee sa morom nga nekko ko ma bés bu màgg la yow noo dundee bés bi tey. ah tey day alhamdulilah rabil aalamiina maa ngi ciy sant yàlla di gërëm suma ñaari waajur ah, dugal nañ ci si bisimilah rahmaani rahim yi ñu gën a ci si alhamdulilah rabil aalamiina ah, at bii nag dafa nekk ati mbégte li tax mu nekk ati mbégte tey Gambia pendant ñun ñëpp ñoo julli ndoor loolu nag gëj naa am léegi léegi werante daf day am ñii julli tey ñii julli ëllëg waaye bii alhamdulilah rabil aalamiina way sant nañ ci yàlla Gambia ñëpp mën naa wax ne ñëpp ñoo julli Bubu santa yalla la bobu hiwal la buñu yalla may kon ñu té santa yalla diko di ci lool ban message nga amal gamien si ci bés bi rawatina nak ci mbiri jaama ak unity. Ah, delu wala li sant yàlla jàmm bi fi nekk lool yalla ko yalla saxal ah, li bala ma dugal ci lool ki nga xamne mo ci bop rew mi li aladi Adama Baro ah, ñu ko gëlem di ko sant ñu gis nañ ne ci biir juróomi at ak si juróomi at yi moo dugal si nii ah, mu ngi saxal jàmm ci réew mi di tey soo gisee ngeen am jot li ñëw yëpp jàmm moo ko waral kon jàmm jooju yàlla na ko yàlla saxal eh, te ñu ngi sant yàlla eh, ci diina bi tamit alhamdulilah bil alamina man dama ko day wax toujours ne yàlla eh, Gambia daf fi def ñaan ñaan boobu nag incha allah su soobee yàlla loolu mooy continuer moom la kilifaay tamit du yokka waaye wax naa am na suma benn kilifa daf ma daa wax mu ne ma Gambia ku fi bugg a isi fitna rek yàlla la ko la delloo sa kaw soo te man gëm naa ko soo kon ñu ngi gërëm yàlla ci loolu di ci sant yàlla loolu moom yàlla na yàlla saxal jàmm bi waaw wax nga mbiri jaama euh, ndaxte jaama dafa am solo trop si réew ndaxte réew du mun a développe su nekkee jaama amul foofu noonu si réew moom am lu tax nga foog ne jaama am loolu lañu war a ñaan si réew mi rawatina nag bés bu maaga bi. Euh, loolu moom foog naa dañ koo ñaala àddina si yëpp because am rek euh, loolu moom la sant yàlla léegi tey gis nañ Russia li xew digganteem ak ñi xaw ma ko li Ukraine. gis nañ fitna bi fa nekk te fitna olof yi lañ dee wax ne ñu ne fitna bu ko kenn ee because kenn xamul fan la dee mujjee fitna Ukraine bi ak Russia bi ah, mu ñoo affecté ñun suñ bopp te ñun sóoriwante la ñoo ñoom moo tax fitna kenn walu koo ñaan soo moo tax toujours la nañ wala ñaan jàmma soo ñaalee fitna rek fi moo law rek kenn du ko xam su dee seetlal Ukraine ni mu soree Gambia Russia ni mu soree Gambia waaye tey gaal yi war a isi bagage ci sax problème la loolu moom kon donc fitna kon buñ ko ñaan ci benn réew ñoo ñaan na ñaan àddina si yëpp yàlla na fi yàlla daxa fitna te loolu moom moo gën a am solo tey soo gisee Gambia tey ah, alhamdulilah bil alamina soo déggee ñu ko ooyee smiling coast of Africa jàmma jeeta kon loolu nañ yokk ñaan yokk a jàmm ci réew mi te ñuy wax waxi jàmm loo xam ne dafa si jàmm ci réew mi nañ dee jublu ci loolu wax nga mbiri politique politique bi dafa dem di ñëw tey ku déglu président bi bi moo adresse gars yi euh, state house euh, li mu wax yépp <laughs> jàmmi jàmmi réew mi la boo tey lu naw lu nekk rek ñu ne président lu ndaw lu nekk ñu ne président euh, waaw duñ ko bileem yow toogu bi mu toog moo tax toogu boo soo fa toogee lu xew rek dañoo la yow la waaye alhamdulilah bil alamina kon boobu moom it ñu ngi ko ñaanal yàlla na ko yàlla saxal jàmm ci réew mi yàlla isil ko naataange li mébét ci réew mi kon yàlla ko yàlla defal te gis nañ ne mu ngi jëfee loolu tey nag tis bi jàmm ah, bi dégg naa ci lu ma neex mu ne comme jàpp place parewuloo liggéey bu génne la fa teg fa keneen loolu moo yóbbu réew mi ci kanam loolu yóbbu réew mi ci kanam te kon ñu ko jàppale ci loolu ñu nit man ci loolu laa sax toujours nañ gis Gambia gis réew mi suñ ko defee rek coono bi na wàññeeku suñ kaw ok saa yu nekk ñu ngi joytu development development development nag ñu bari ñu ngi wax ne du mun a am fekk euh, su fekkee ne ñun ñun mi nekk si réew mi jàppantewuñ boole xol yi nangoo liggéey. waaw development nit ñi dañ ko dee jooy waaye foog naa ñun ñëw war a gën a soo déggee development réew mi dafa dem si kanam ñun ñoo war a développe suñu bopp. because réew mi euh, ñun ñëw ci war a jàpp pour mu dem ci kanam waaye soo toogee lem sa loxo rek development development du dem waaw xale yi nañ jàng suñ jàngee métier yeneen dëkk yi nga gis ni muy développe yëpp loolu la métier bi moo leen laa di moo moo ñoo dimbale nekkul ne ñëpp dañ war a dem ci euh, comme euh, ci université yi nekk ci yeneen libi li léeg am na ñoo xam ne yàlla mayu la xel yi jàng waaye mën la xel la yi métier soo jàngee métier construction yi nga gis nii yëpp ak pittering bi ak tailoring ak yooyu yëpp although am nga little background of education daf ci lee baax waaye nag soo ci jàppee ah, tey <laughs> liñ sol lii man maa yow ñawkat yee ko ñaw léegi euh, <laughs> construction ñoo ko lee def so maçon beeg lebles beeg ñëpp ñoo war a jàppal ci réew mi so agriculture bi tamit ku nekk da am sa waar ñu nekk ci wàllu agriculture bi li béy ci wàllu agriculture bi boobu tamit sant yàlla la so loolu moo yóbbu réew ci kanam nan la ñuy libalab suñ boppa ñu wécci suñ attitude bi jublu ci liggéey ci réew mi waaw looy dénku waa NPP ndaxte yow yaa jiite NPP si KM si KMC waaw man su suma rôle rek amul KMC because man may regional chairman bu KMC ba pare man may national chairman bu MPP yaa ngi ne all the chairman within li contre ñëpp suma rôle lañ nekk so dama lay waxtaan ak ñoom dama lay liggéey ak ñoom so li ma leen a dénku rek nay mooy unité bi eh, yàlla place moo ko dee joxe naan toujours dama lay wax ne doomu aadama <laughs> bi ngaa ñëw la yàlla bii na li nga war a àndal yëpp suñu amee ngóom boobu rek su duñ soxla bi Adama Barrow bi ko yàlla ne dafa nekk président kàllaa kulli xaalin kenn mënu si dara ci biir ñetti weer rek ah mu nekk président soo suñu amee ngóom boobu ne yàlla moo ko dig na daf ko def président def na ko président kon doo ñu nit lu ñu yàlla dénka ak lu mu tuuti tuuti nañ ci sàmm suñ ngor ba pare sàmm si suñ kàddu loolu dafa am solo nit ki li nga wax toujours da nga cee bàyyi xel wax loo xam ne ëllëg dafa njëriñ réew mi loolu dafa am solo waaye wax yoo xam ne dafa xaajaale eh, dafa isi noonu yooyu amul benn njëriñ politique moom ah, dem lii dafaa dem lii ñëw ñun toomee na yàlla def na li ma toomee la PPP nekkoon naa yuut lii la mooy tamit ñoom Odie Diallo ñoom ee Ndiaye laay boobu maa ngi yuut lii la maa ngi gën a ndaw so ñoo leen bu <laughs> bu yaaya jàmme kooku tamit ma nekk UDP nekk naa fa eh, li ba bi ma faa jógee so kooku tamit dem na Adama Barrow ñëw na soo kon doog foog naa ne ñun ñëpp lañ war a jàppalante ñu gis ne réew mi dem na kanam te ñu moytu yëfi tribal tribal line tribal line amul solo dafa dafa delloo réew gannaaw nañ seet loo xam ne dafa yóbbu réew mi ci kanam ñun ñëpp la lañ olof beeg pol beeg soose beeg joolaa bi ñun ñëpp ñun ñooy siyante ñooy suulante ñooy def lu nekk soo kon doog bu ñu nangu politique war na xaajale loolu man duma ko day accept moo tax toujours man suma politique euh, duñ ma day déggal lu bëri because dama day gardé suma lamé dama day gardé li ma day wax so loolu dafa am solo ci doom aadama té jital ne yalla moy meyer lu la yàlla meere toujours il kala ku halin xaalin benn doomu aadama mënu ci dara xalaa lu ci yalla so loolu mom lañ ci baye xel bu baaxa baaxa ba ok um, Uncle unda mu ngi mel ni ñu bàyyi la léegi um, di la wax ne rek mubarak uh, kon am na kàddu wax nga ko fi yu am solo mooy jaama ak jàppante bi ndax pour ñu develop réew mi